xaaj bu jëkk bi ci juróom xaaj yi yàlla fas na kóllëre ak Ibrahima ak askanam yàlla lu mu dige dina ko def gannaaw la xew ca taaxum babel yàlla jógul ci li mu tëraloon ne dina yónni musalkat bi yàlla tànn na ibrahima ngir mu doon baayu réew mu yaa te musalkat bi itam askanoo ci moom at yu bare jàll nañu ganaaw bi nit ñi doon jéem a tabax taax bi ci babel nit ñi tàmbalee màggal yëf yi yàlla sàkk di leen defal ay sarax te bañ a jaamu yàlla noonu yàlla wax ak nit ku ñuy wax ibraam maanaam ibrahima yàlla ne ko mu jóge réewam bàyyi ay mbokkam ak kër baayam toxu meneen réew yàlla ne ko dina ko def xeet wu yaa dina ko barkeel te dina màggal turam dina nekk bunt barke mu ne ko dina barkeel ku ko teral te dina alak ku ko moolu yàlla ne ko xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci moom bi yàlla di digee loolu ibraam amoon na juróom ñaar fukki at ak juróom moom ak jabaram amuñu woon doom noonu ibraam jóge réewu karaan ànd ak saara jabaram ak loot doomu magam ju góor yóbbaale alalam jëpp jëm ci réewum kanaan muy réew mi yàlla dige léegi ma leen benn lu tax yàlla tànn ibraam yàlla tànn Ibrahim ngir mu nekk baayu xeet wu yaa te ngir musalkat bi askanoo ci moom ñaar lan la yàlla dikk ibraam digg na ko am réew askan wu yaa ak itam ne nit ñépp dinañu barkeel ci moom ñett lan la yàlla bëgg a wax bi mu nee nit ñépp dinañ barkeel ci Ibrahim mu ngi tekki ne nit ñépp dinañ barkeel jaare ko ci musalkat bi ab sëtu ibraam ñeent lan la ibraam def bi ko yàlla waxee li mu ko dig ibrahim gëmoon na ne li yàlla wax dëgg la mu déggal yàlla jóge këram dem fa ko yàlla wax juróom lan lanu war a def ngir neex yàlla war nanu gëm li yàlla dige te topp ay ndigalam